ñu ñëwoon fii ci Touba pour faire une remise symbolique bi nga xam ne ay xotti kees la parce que dafa am benn travail bu ñu commencé te li ñu commencé ci liggéey buy projet bi dañ ko tuddee defaraat suñu liggéey te bu nee ànd defaraat suñu liggéey nag lu yàqu rek moom la ñuy defaraat gis nañ ne suñu liggéey dafa sooxe ñu bëgg a jubanti ñu xool naka la ñuy def pour mën ko jubanti ñu amoon nag trois axes yoo xam ne dañ ko jëloon axe bi ci jiitu mu bokkoon na ci wàllu sécurité parce que oto diñ daan chargé jën yi dafa métti te aussi kees yi diñ ko daan feesalee dafa métti ñu ne nañ fexe ba di ko wàññi li ñuy tuddee kees kees te aussi vraiment loolu liggéey boobu gaa yaa ngi ci deuxième bi ci topp aussi ju wax ne kon kat kees yi aussi ko ñàkk muy ay xotti kees xotti kees nag dañu gis ne xotti kees dafa tasaaroo ci réew mi ba chaque année boo bëggee 100 kees 100 kees yu nekk 1 million 500 te oto bi bi ngay yor yaa ngi ci teg ay kees 3 millions ngay jënd kees pour nga mën ci teg te 3 millions yi ngay jënd ci kees boo seetee 1 mois 2 mois après dootoo gis ba tax nag ñu am benn projet bu ñu teg daal mooy képp ku ñu jaayati kees ñu sotti ko te ku ne xam ne ne Touba dëkk ba spécial la wax dëgg yàlla bokkul ak yeneen dëkk yi parce que 37 mars mi ngi ci biir te ñi fi nekk aussi comme ñoom xamuñu woon loolu tàmmuñu woon loolu aussi xawoon na am ay jafete waaye suñu borom def na ci xéwal di ci sant nag wax dëgg yàlla kilifa gi nga xam ne mooy euh, xalifa bi sëñ Mountakha Mbacké ah di sant aussi ki nga xam ne mooy sëñ Bass Abdou Khadre di sant aussi sëñ nga xam ne suñu bunt ci sëñ Bass Abdou ñu boole loon vraiment ñu ay liggéey yu am solo ba yàlla def lépp nekkaat ci ñun nag ñu ne danañ ci comme ñoom dañ ciy def nañ jug ay kees su ko defee ñu dimbale leen nga xam ne ñoom danañ mën a commencé li nga xam ne mooy entamé li travail bi nga xam ne dañoo bëgg kuy jaay kees kuñ ci jaay kees nga sotti ko moo taxoon inam si jël ci gafakam lu tolloog euh, ñaar téeméer njëgu ñaar téeméeri kees une valeur de 2 euh, millions 400 mille pour dimbalee leen ko pour ñu mën a jënd ay kees aussi di ci remercier encore une fois ki nga xam ne mooy directeur marché central au poisson bu Touba muy maam mooy wax dëgg yàlla mu def ci liggéey bu am solo wax dëgg yàlla yónnee fi moom it jàppale leen ci 90 caisses nga xam ne presque boo boolee lépp dafay nekk ay 3 millions 680 mille de valeur vraiment ñu ngi leen ci sant bu baax loolu daal moo waraloon suñuy tànk fii tey ci Touba su ko defee ñu def remise symbolique bi ah ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk suñu xarit yi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi te ñun lañ bokk di lancé nag appel parce que appel bi may lancé maa ngi koy xam ne ñooy suñu kilifa muy suñu ministre tutelle nga xam ne mooy suñu kilifa ak ki nga xam ne mooy directeur DPM nga xam ne mooy Ismaïla Ndiaye di lancer aussi directeur DP DITP nga xam ne mooy euh, Abdoulaye Diouf nga xam ne ñoom ñooy suñu kilifa suñu amee problème ci ñoom la ñuy jëm di leen wax ne leen il faut ñu dimbale marché yi parce que marché yi détaillants yi sonn nañ te aussi dañuy am problème pour li nga xam ne mooy seen outil de travail yu ñuy liggéeyee Touba nag dëkk bu spécial la di dem le ministre mu fexe ba wax dëgg yàlla ay xotti kees ak yooyu nga xam ne ñu ngi koy liggéey lu leen ci mën a dimbalee ñu dimbale leen ko dimbale marché waal yi nga xam ne moo nekk Sénégal yëpp lii daal vraiment moo taxoon tey ñu ñëw fi pour daje.